la régie bu nekkee am na ku nekk en ligne asalaamaaleykum Agibou Diallo. waaleykum salaam Cheikh Sadibou. bu Diallo nag may wax suñu internautes sama rakk la sama xarit la moom mooy président groupe d'activistes boobu ñu tuddee seen bopp Petro-Team Monde moom mi ngi ci France science politique la jàng waaye Sénégal da ko ñor loolu. bu jàlloo euh, ban lecture nga am ci li nga xam ni mooy participation de ces majors de ces multinationales qui brassent de milliards et des milliards comme dividendes ban jàngat nga am ci ñoom dugal bi ñu dugal seen loxo maanaam participation à l'effort de guerre bi ñu def président Macky Sall initié ko ban jàngat nga ci am. waaw Cheikh bu maa ngi lay remercier ci occasion bi nga ma jox pour ma jël parole ci sa émission. sur sujet bu mel euh, bi nga proposé tey des followers ak contexte entre guillemets pour reprendre discours dominant de guerre bi ñu nekk euh, dañu war a jàngat lépp et puis natt ko par rapport ak aussi situation fi mu toll ak nan la ñuy def ba jëm ci génn mm-hmm. mais ce qu'il y man ci sama jàngat analyse bu gàtt lu ma ci a wax mooy les multinationales elles sont dans leur logique de thésaurisation c'est-à-dire di toujours maximiser les profits mhm. parce que su fekkoonte ne c'est la situation euh, euh, la condition humaine moom moo nekkoon le moteur de la philosophie de leur économie mhm. du ñu gis disparité sociale yi am depuis que la mondialisation depuis des années soixante dix ba tey mhm. c'est-à-dire que le monde n'a jamais été aussi riche qu'il ne l'est aujourd'hui, mais la disparité entre les riches et les pauvres n'a jamais été aussi grande de toute l'histoire de l'humanité. Mmh. Mmh. Ces gens-là, par toutes les combines à travers les guerres économiques, n'ont fait que conduire l'humanité dans des catastrophes et dans des crises. muy deux mm-hmm. guerres mondiales yi muy les crises systémiques yi nga xamante ne moom moo nekk di dal adduna bi nit il ne faut pas ñu toog yaakaar ne ni situation bi demee ne ni il faut se retrouver avec une conscience morale en revanche Macky Sall dafa am benn responsabilité boo xamante ne il est dépositaire du suffrage des Sénégalais dafa am il est doublement engagé moralement et d'un point de vue même historique mhm. au lieu de créer des mécanismes fiscaux yuy permettre ces multinationales xaalis boobu ñuy gagné ñu mun ko défalquer ci seen impôt sur les revenus autrement dit c'est l'État encore qui va parce que lu multinationales y dugal dañ koy mën a retirer ci seen impôt sur les sociétés loolu c'est Sénégal qui perd il aurait dû utiliser la loi d'habilitation bi laaj Sénégal yi pour mmh. société yi bénéfice seen nationale etc. On dans une situation de guerre. donc par ordonnance war na jël ay décret yoo xamante ne daf koy lever sur non récupérable du am loolu bu ko defee ñu xam ne ne guerre bi muy woote dëgg na boppam moo gën muy woo ay nit ñu di jéem xool ku nekk nan lay def ba présenté wu comme quelqu'un qui est impacté dans cette crise du Covid ba nit ñi di ci dóor ay marque quoi ku ci nekk ngi jéem a xool nooy def pour dundu ci kaw tumuranke ak njàqare bi suñu population doon donc loolu c'est de l'antipatriotisme mhm. et société civile malheureusement mhm. je profite de l'occasion pour te rendre un hommage parce que yow à ton niveau à ta modestie tu tant bien que mal de ramener les gens vers l'essentiel et les discussions constructives je te tisse mon chapeau grand et je t'encourage et société civile bi ñoo war a poser problématique bi c'est pas pas que un enjeu sanitaire mais ça a beaucoup de ramifications au plan politique au plan social au plan culturel même notre rapport avec aujourd'hui l'économie mondiale mm dañ ko war a toog discuter ci parce que crise bi dé dépassé na ay enjeux sanitaires il des enjeux économiques et donc il faut rien attendre de ces multinationales au contraire il faut se battre pour que l'État absolutiste reprenne pied dans le contexte actuel si on veut protéger nos concitoyens kon maanaam euh, jàpp nga ni tey état bi dafa war a engagé benn bras de fer contre ces multinationales pour ñu gën a yokk seen participation à l'effort de guerre may fàttali sénégalais yi ni que orange bi nga xam ni 2019 bénéfice net 196 milliards 500 moom la orange def orange boobu comme effort de guerre liquidité financièrement orange n'a remis à l'état du Sénégal que 250 millions Agibou xam nga xam nga loolu c'est de la provocation mm-hmm. c'est de la provocation et pi mënul demee neneen tant que ñun Macky Sall wanul wanul multinational yi ne weg na askanam weg na peuple mhm. parce que aussi nit ñi naan bukki bu songee gay bu gaynde ci doxin wi la mhm. il a des dispositifs législatifs qui lui donnent la prérogative aujourd'hui compte tenu de la situation mhm. mais mu teg ay daan ñu ko mënul ñu ko ku ko nangul nga dem Mm-hmm. Nous ne manquons pas de ressources mm-hmm. stratégiques qui peuvent être par ailleurs sollicitées après la crise parce que l'économie va de toutes les façons continuer à fonctionner. Mm-hmm. Donc c'est le moment de nous démontrer que lui, c'est un, il est à la hauteur de Roosevelt, il à la hauteur de tous ces grands hommes-là qui ont, de leur pays dans des situations de crise inextricables. Parce que homme politique, moi, la sa responsabilité historique est interpellée. au-delà de la question morale mhm. le fait que muy jël ay mille milliards di woo ay nit ci pale bi ñuy taaxuraan di xool ku nekk ñaata nga ciy mën a am alors que le peuple est actuellement sur le qui-vive je trouve que c'est amoral c'est mhm. antipatriotique et c'est encore nous euh, rabaisser notre dignité par rapport aux multinationales et à tous ces gens-là qui observent le Sénégal mhm. donc Agibou Diallo may partager avis boobu ak yow te yaakaar naa internet yu bëri nañ ko mun a nangu c'est le moment mooy li ma leen doon wax rek on est en guerre mais amuñu chef de guerre c'est le moment au président Macky Sall d'incarner ce leadership et de montrer la voie à suivre Orange mu ñu nu fi nekk di def de milliards et des milliards d'économies Sénégal soxla ñu ñuy jox deux cent cinquante millions Eiffage ak Gérard Sénac mënuñu fi nekk marché bu fi xew ñu jox leen ko ñu soxla ñu ñuy mel ni ñun dañuy yelwaan total bi nga xam ni. wax naa ko à l'entame de propos. ñoom ñoo taxoon makki Sall dàq Thierno Alassane Sall tey total boobu ñaata la joxe deux cent millions en carburant mooy yéeneew ñu ñu sax seen xaalis te mu nekk xaalis boo xam ni Sénégal lañ koy liggéeyee mu nekk xaalis boo xam ni nguuru Sénégal moo leen ko yombal Agibou Diallo le mot de la fin. et puis sur le mot de la fin man je voudrais demander. Uh -huh. je me pose la question. Et j'invite les Sénégalais aussi peut-être à, à, se poser question, si ce n'est déjà fait. Mhm. moom ci guerre la ñu wax la ñu dugg guerre bi c'est une guerre bactériologique entre guillemets qui menace la santé publique mhm. mais ban comité d'experts réuniral pour ñooñu dégager un montant conséquent boo xamante ne c'est basé sur des faits réels et tangibles un projet boo xamante ne ça doit être bancable nit ñi mën ko endosser collectivement pour pour sauver à la fois notre système de santé qui est à plat mhm. qui relever un peu le niveau de la recherche scientifique et médicale dont nous ne manquons pas de ressources humaines mais qui sont livrées à eux-mêmes donc mhm. toutes ces questions là tey Covid bi dafa indi prétexte à discuter de tout ça mhm. mais en toute transparence ñu bàyyi politique politicienne bi nga xamante ne lu xew ñu politique politicienne ci affaire bi mhm. c'est pas sérieux mhm. c'est irresponsable mhm. maa ngi jéggalu nag ci kàddu yi grand waaw ñi ngi lay remercier di la gërëm ci sa disponibilité ñi la xam xam nañ ni tu es un être entier loo gëmul doo ko wax may fàttali suñu internautes yi kooku mooy bu Diallo di président bi nga xam ni mooy président wu Petrotim Monde régie bu nekkee am na ñeneen ñu signalé sur la ligne ngeen wax ma allo la régie allo waaw kon dégg ngeen ko Hadjibou Diallo soulevé na fi ay point yu important au-delà de l'urgence sanitaire après Covid 2019 les enjeux économiques les gens les enjeux géostratégiques ak la nouvelle configuration du monde le rôle et la place du Sénégal dinañ ci ñëw ci beneen thème ak d'autres experts euh, et yaakaar naa ni waxtaan bi dina gën a neex